asalaamaaleykum alaikum mbok sénégalais nek fi ci Italie yéen ñiy déglu radio defaral suñu bop mbok yi comme niñ ko façon ak yéen bés bu nek à partir de 20h xana rek ñu ñëw indi leen xibaar yi nga xam ne moo nekk ci réew mi ci mbirum feebar bi ñuy wax euh, coronavirus di leen yëgal ne chiffres yi nga xam ne euh, protection civile moo ko joxe jox wax dëgg yàlla euh, euh, tey li génn àddina tamit bëri na parce que mu ngi toll ci sept cent quarante trois diggante démb ak tey sept cent quarante trois personnes ñoo ci génn àddina di wax ne ñi génn ci àddina yépp ci Italie bi mbir mi commencé ba léegi ñu ngi toll ci 8200 ak lu topp ci lañ toll wax dëgg yàlla mu nekk bilan bu métti nag ndaxte ñëpp xam nañ ne lu toll noonu ca Chine gëm jógee eh, amu tollul foofu di wax ne li nga xam ne wax dëgg yàlla chiffres yi suñ koy jox suñ yaram day dem suñ xarit sénégalais yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci fii màgget fi ñuy eh, jàppale màgget yi muy li ñuy wax case de repos muy maison de repos yi maison de retraite yi dëgg yàlla ku ci waxtaan ak sa mbokk muy liggéey ci yooyu sa yaram day daw ndaxte feebar bi wax dëgg yàlla mu ngi gaañ bu baax màgget yi nekk ci centre yooyu parce que am na suñ benn mbokk sénégalais bu mu doon dégg tey ci suba tam dëkk Crémona di liggéey ci centre yooyu nee na seen centre bi nekk rek presque 33 màgget génn nañ ci àddina muy nag wax dëgg yàlla lu doy waar euh, xanaa rek euh, di wax nit ñi continuer di wax nit ñi nañ ci jël seen matuwaay yu mot feebar bi aussi mbokk yi xam ngeen ne mu ngi gaañ Espagne ndaxte foofu la fa nekk la fa génn gum àddina toll na ci deux mille cent personnes te ñoom ñoom ñoom moom ni mu gaawee Espagne sax gaawewu ko noonu fii ci Italie mbir wax mbir mu doy waar nag euh, ñu liir ko ci journaux yi muy foofu tamit mag yi lay daal mais dafa am benn centre de retraite fu ñuy denc mag yi ña doon liggéeyal ña doon liggéey ca euh, biir centre boobu daw bàyyi fa màgget yi ndax dee bu bëri ba ñoom ñu ragal ba daw ba armée bi boo ñëw fekk maquette yu bari dee foofu ndax jàkk taxawaay bi ak feebar bi nga xam ne moo fa dugg ak doole kon nag mu mel ni rek feebar bi nii mu mel ci Italie mu ngi ko mel euh, ca Espagne te nag waa Espagne ragal dee torop espagnol yi am na suba benn mbokk bu mu du ci doon waxtaanal tey mu ne ma Espagne espagnol yi dañoo ragal feebar ma ne ko nag feebar moom kenn ñemewu ko waaye nag il paraît que espagnol yi dañ cee xaw a dem dayoo ci ragal boobu parce que nag yore ay mag war leen toppatoo euh, feebar ñëw rek nga ngeen daw yéen ñëpp ñu fa doon liggéey daw loolu euh, rafetul mbokk yi euh, xanaa rek suñ dellu see Italie di wax ne isolement bi forcé na ñi ñu toog seen kër. gouvernement bi mu ngi gën dëgëral euh, mesure loi boobu mu doxaloon parce que dem nañ ba ci léegi ba nga xam ne kuñ ci jàpp dinañ la multu diggante trois mille trois cent euros ba cinq mille euros am na sax benn xale bu ma doon oo ne moom dafa génnoon dem génn commune am dem ci benn commune di dugg supermarché ñu ñu arrêté ko fa multu ko kon nag di wax na ngeen des ci seen commune yi ngeen dëkk naa ne supermarché su fa amul su fekkee ne da ngeen war a dugg li ñu def rek mooy au carabinier bi ñu wax teg leen ci yoon wax leen ni nga xam ne moom ngeen di doxalee euh, carabinier yi xam ngeen 112 moom ku oo moom carabinier yi dinañ la tontu teg la ci yoon kon nag mbokk yi lii mooy coronavirus fii ci Italie mbirum kañ lay jeex amoon nañ yaakaar parce que nag ñi ñi nga xam ne. <clears throat> ñoom la feebar bi dugg eh, nombre bi mu ngi doon wàññeeku dem ci ñaari fan yi xanaa rek ñoo am yaakaar ne fii 3 avril comme nañ ko waxoon ñoom yaakaar mbir mi wàññeeku bu baax ba trois avril boobu ñu mën eh, ubbiwaat mbedd yi ubbiwaat kër yi ubbiwaat place liggéey yi mbokk yi xam ngeen ne tamit Sénégal la fa xew démb président la République. d'ailleurs def naa ci benn waxtaan mu ngi ci rajo bi ak ci YouTube bi Sénégal tamit feebar bi mu ngi fay dugg bu baax parce que ni ko président waxee presque ci noor bi ci centre bi ak ci sud ba feebar ba mu nga ca am na sax ay kilifa yu mag yu wane ne dañoo jot feebar bi comme kooku ñuy wax Guirassy te dëkk Kédougou nekkoon maire de Kéd nekk maire de Kédougou ba nekkoon nekk fi ministre moom tey wane na boppam ne coronavirus bi da koo téye ba ñu ko denc ci centre isolement bi nga xam ne nguur gi moom la taxawal yóbbu ko foofu ci jam ñaajo kon nag suñ mbokk yi buñ laam-laami ndax feebar bi mu ngi am wala amul feebar bi lu am tigi la dafa fekk na nag ci biir communauté bi ñu ci bëri dañ ciy laxatu duñ ko wax ñàkkul ni loolu tax mbokk yi ak indiscipline bi nga xam ne moo nekk ca réew ma ñàkkul ni looloo tax président Macky Sall jël loolu ñuy wax euh, état d'urgence ba noppi def couvre-feu à partir de vingt heures ba six heures xanaa jaaxle rek mu ngi nekk ci mbokk yi toogloo ci seen kër nan la ñuy def pour dund parce que xam ngeen ni dundu bi nit ñi ci bëri dañuy jóg di ko laxar ci ci journée bi. moom nag nee na président Macky Sall dina jël cinquante milliards jënd ko ay euh, mbirum lekk yu yi gën a am importance waaye nag suma xel mu ci ne famille yi nan la ñuy jotee dund googu suñ leen ci war dimbal ndaxte mbirum rassemblement dañ koo aaye te wër ci quartier yi di joxe lekk yi xam ngeen ne nekkul lu yomb te xam naa ne suñuy mën joxe ceeb ak diwlin ak yooyu la ñuy mën di joxe. waaye lu mel nii ndawal ak jën nan lañ koy e, nit ñi di amee ndaxte dem ci marché yi marché poisson yeeg yu mel noonu yooyu yëpp xam nga day taxaw day day bloqué wu kon nag mu nekk question boo am njëriñ xanaa rek ñuy wax ni ñàkk pexe pexe la parce que lii lañ mën tax rek pour nit ñi e, seen xel dem ci waaye nag pour man am naa xam naa xalaat suma xalaatu bopp nag laay wax mu xam naa ne feebar bi ñam gaañ Sénégal chiffre bi nga xam ne ministère bi da koy joxe parce que suñ defoon tampon rek dinañ gis ne wax dëgg yàlla chiffre bi bëri na waaye nag ay tampon trente personnes par jour ci réew mi toll ni Sénégal wax dëgg yàlla tuuti na ca lor xanaa rek ñu wax pour bañ a alarmer nit ñi ak pour manque moyen ay tampon pour def test yi ñàkkul ne peut-être ñuy koy yemale foofu. waaw kon nag mbokk yi lii mooy euh, xibaar yi di leen wax ne xam naa ne euh, dinañ ko topp surtout nag li nga xam ne moo gën a intéressé mbokk yi pour xam kañ lay jeex ak su jeexee ñi nga xam ne dañoo toog seen kër nan toog boobu ñu toog nan lañ leen koy fayee ndax dinañ leen faye wala déet gouvernement bi jël na ci ay mesures mais nag dañuy xaar. ba mbir mi gën a leer mbokk yi ñu ñëw sotti leen ko fii ci rajo defaral suñu bopp di leen ñaan tamit ngeen télécharger application bi parce que wax dëgg yàlla application bi ku ko yoree benn information du la réer te nag ñu ngi préparé wu pour journal bii nga xam naa vingt heures lépp lu xew ci Italie gi ak ci Europe gi ñu koy nekk lu saxal di ko saxal bés bu nekk muy ci coronavirus bi wala même après coronavirus bi bëgg nañ di ko saxal kon nag xam naa ne du nekk liggéey bu yomb te xam naa ne su ci ñëpp jàppoon dugal ci seen loxo fii ci rajo bi moyens yi ñu permettre ñuy gën yaatal yu bëree bari nga xam ne képp képp ci mbirum réew mi nga dégg italien nga ñàkkul dégg italien dara du la ci euh, réer suñ benn mbokk buy tudd Babacar Dieng depuis États-Unis tey New York oona ma ne moom rajo bi lay déglu maa ngi koy nuyu ba noppi nag mu defal ñu ci ay yéene yu baax wax ne wax dëgg yàlla dina jàpp ci rajo bi dugal ci loxoom pour que ñun ñëpp ñu mën koo jëriñoo parce que ci mbirum coronavirus bi lañ gis ni réew mi nekk war nañ xam li fi xew tous les jours waruñ dégg ay rumeur rek waaye dañ ko war a xam-xam bu baax loolu mbokk yi mooy li tax ñu taxawal rajo defaral suñu bopp defaral suñu bopp nag wax dëgg yàlla mooy ñun ñëpp ñoo ko bokk fi mu nekk nii lii rajo bi di dox su may moyen personnel la waaye nag suma ma sañoon daal ñëpp jàpp ci pour que xibaar yi ñu mun ko def liggéey guddeeg bëccëg di ko joxe xam naa ñàkkul ne dinañ ci gën euh, dikkaat pour faram-fàcce di nuyu donc Babacar Dieng ca New York parce que moom it nee nañ New York tëj nañ ko ñëpp ñu ngi euh, tëju ci seen biir kër yi te wax dëgg yàlla New York ni mu xumbee woon suñ toogee ba mbedd yi kenn nekku ci nga xam ne ne feebar bi lu doy waar la mbokk yi te nguur yi xam nañ ko moo tax ñu jël yenn mesures yi kon nag mbokk yi maa ngi leen di nuyu seen xarit Baye Diouf ci rajo defaral suñu bopp. fii ci Milan ba suba ak jàmm te ngeen nekk ci jàmm yéen ñëpp jërëjëf.